xam nga tey ku bëgg lu baax rek waaw mënul yomb daal noonu la demee nag tey muy bés bu mag waaw bés bu mag waaw mais nag ñun daa am fuñ féete quoi ci bis bi waaw ay doomu jàmm gën lañ dëgg la gis ngeen ñoom ñoo nekk fii depuis démb di defar di teg saako yeeg di def lépp lépp jaar yoon door yi di nek xawma nak ban bar mo fi nek gis na fi ben repose en paix papa est-ce que du doomu babu Ngom parce que doomu babu Ngom legui euh, mom mo jël place papam tambour major bu mag bi en tout cas tay ambiance bi euh, dinañ len ko garantir ñu wëyal xol tuti batay ambiance bi fim mu bruit supporter yi rek ngay dégg fi wa Modou Lo yi ñoo fi nekk da melni supporteru Modou na ngeen def naaj bi tang na de ah jaral na len ko. yow Modou wala sita nga. dama gis wa sita yi sol mayo yi de. ah mayo jambar la ok ñu ngi ñew Ibrahima nañ essayé eh, xol nak dinañ ñu bayé ñu dugg. melni côté bi supporter Modou Lo ya dajare nenañ noble yi sañ sa ñew tok billahi li passé lam solo naaj ñew tok kiling. xeyñ neex xeyñ lu neex nak supporter ya Oustaz incha allahu rabi si li nga wax bariwul. bar bi sifle na taxaw deugal bobu Maxime barga lim ngay digal jeug nañ ko re ay langue be bu mu fa dem na sambu si digge bi. ñu door ko croisé manteau mu wacc Maxime barga lan lako digal. lim ko digal dégg nañ ko ay bu arbitre prip mu daw new ci lateral ci saako lolou lepp yacc na ci ñun mom na dal rek mu dina ko duma dina ko daan ci kàttanu yalla bu soobee yalla insha allah rabbi di leen wax nak lamb ju non violence waaw ke le maire gagne mais Modou Lo la ñaanal ndam. alors batay tey supporter Modou yi <laughs> ñi ngi ni taxaw ñi ngi ni nii euh, sañ se solo ba jek xej neex ñew tok wa ñew ni rek tok di setan lamb di ñaan nak ñu bëre ko ci jamm ndax lu mëna xew mom senegal ñoko bok euh ke le maire gagne ñu def fair play rek ñu gagne ko. bëree ko mu simple mu neex amateur yi beeg mu jeex ñu ngi jëpp. ñu yéeg euh, Ibrahima. non kese. waaw kay. yàlla saaxle. waaw bu yàlla dogalee bu yàlla defee jàmm mënuloo daan ko jëlee bu rëy. waaw waa parcelle da ngeen siis si seen couronne bi daal. waaw dañ cee siis yéene ci kenn couronne bi à vie mënuloo direct laa la jël de. direct nga may jël mu wax ci Modou lu neex xam Modou dafa daan Ama Baldé wax ji bari mu jàpp Boy Niang defaral ko Siteu ñëw fi nag wax ji di gën a bari mais teel a lépp di leer. mais Siteu takku na ba dëgër de. wax jee bari rek mais fii ku na xam nga ku la mën arène bi Modou Lo mooy borom. day bëre ba saa bu ko neexee mu teg affaire bi jox ko Franc. li ngay wax yomb na de. la wax li man Modou Driss bu xarañ loo li ma lay wax doy caaxaan. waaw baax na. supporteru modulo yi maa ngi leen di nuyu. ñoo ngi lay fay bu baax baax. alors. Euh, nan ngeen di indee seen mbër tey. suñu mbër dañ ko indi si fulla ak fayda waaw surtout moom arbitre bi sifflé moo ko fi bàyyi waaw bari na wax trop nag mais arbitre sifflé moo ko fi bàyyi quoi. mais am na ñu ne Siteu mooy daan de. mais ñooñ seen seen bëgg-bëgg lan wax rek mais waxuñu làmb quoi mais ñi xam làmb dëgg xam nañ Nah amul dara si combat bi. mais est-ce que xam nga làmb waxul dëgg. yaa mais mais la leen ndax daan ndax mu duma ko daan ko. Euh, GFM. GFM incha allah baax na. nga def yow. sant CFM. yow xale nga de. lan moo la fi ànd. première gagne la. supporter si Modou si naaj bu tàng bi. première gagne. naaj bi tàng na. naaj moom tàng na moom. añoo leen lekkoo leen ngeen ñëw fii pour euh, supporter seen mbër Modou Lo moo leen ko jox. waaw moo ñu fi moom. waaye di ruube sànq ba léegi. mais xar yow lamb da laa namoon da ngaa war yow da ngaa war lamb. mais maa leen raw bilaahi yow moom da ngaa yàgg ci lamb moo tax. ñëwaat na. looloo baax. combat bi tey noo gisee. combat bi dóor mu daanu la. dóor mu daanu. yaa saxle day dóor waa fii ci lamb ji mu daanu amul leneen. mais loolu yomb na de gis nga si tam moo sut Modou Lo. midi ba léegi moom rek la ñuy topp barki alxuraan bu bàyyi woon làmb ñu bàyyi bëre ñu bàyyi saan làmb moo di sël moom la ñuy topp. daa mel t-shirt yàlla saaxle ngeen sax. jël ko waa jaay nii mooy borom réew mi mooy borom dëkk bi. Ibrahima tey yàlla saaxle. ñu wéyal tuuti ñu xool tuuti gaay yi ni ñuy duggee. Ibrahima ñu ñëw côté yi señ bi no def sante yalla bu baax euh, noo koo faral tay lamb la sétan ci lamb ah yow amateur amateur la war no gisé lamb lamb ju neex la lamb dina am ah. parce que Siteu ñëpp xam ne daa mën lamb ah. mais mo Lo ñepp xam momi dafa mën lamb ba ah. lamb mo ñu indi da lamb mo ñu indi lamb kan moy daan yow kan nga jox fa No lamb ku jum daanu non la démé rek ku jum daanu ko yéné nabli tay ñaar ñëpp ay doomu sénégalais lamb laa seetaan mais ku nekk rek daa am ay qualité quoi. comme kon gis ngeen ko amateur yeeg supporter ñëpp a ñëw. ñëpp ñëw stade man damay bëgg di gis daw nañ <laughs> bi sant bu baax. sant la andi koy supporter xarañ no gisee la ma tam ndam inshallah ndam rek. ndam rek lay ñaan. gaay yi nee gëm nañ yalla yàlla danañu ko jox. ah gaay yi ci te mo gëna taxaw fim toll ni rek mo la gëna bari ma dàq bari mo fit waaw. Ah, wolu nga sombar dal waaw. señ bi. mo ram ma ko supporté. non de. non jëlal supporter mu bra do am loo yi. mooy bras droit. noo de. sant dafa am. ana fu mu toll. incha allah bu jullee ba pare rek ngeen mu ñëw. ah day julli ba pare. waaw loolu waxaale wuñ ko loolu waaw loolu moom force la. ah moom yaa waaw mais xam nga rek si la nekk incha allah léegi mu ñëw. kon baax Ibrahima. lan 15 000 ñëw si naaj bu tàng bi nii policiers di ñuy dàq c'est pas normal de. ah yéen billet 15 000 waaw 15 000 francs lañu dagg tigge ñëw toog fi policiers di ñuy dàq. Siteu dañ koy weer tey amul moom amul bëñ wóor na yàlla tey mënuloo da koy weer dóor mu daanu loo koy def mu dëpp nii. amul bëñ nga amul bëñ bëñu jàmbur la yor ñun xam na lépp. bëñu jàmbur la yor moom xam na doful ay bëñu jàmbur la yor. cosaan la lamb du yëfi xale te dañ cee yàgg Siteu mbër la gam mbër yi ñun yàgg nañ ci géew bi yàgg nañ ci lamb ji ku xam Modou Lo xam ne mbër muy disité la pour jeexal combat am am na jom am na fulla am na fayda am na fit te am na doole am na àndandoor gars yi gannaaw kontaan ngeen. bu lamb rek waxee dëgg ñoo ëpp doole bu lamb rek ñoo mën ñoo ëpp doole. ñoo mën mais lamb nag parfois du wax dëgg. mais ñoo mën ñoo ëpp doole dañ koy jàpp dañ koy duma dañ koy daal incha allah. wóolu ngeen seen bopp daal. supporteru Modou Lo yi wóolu nañ seen bopp daal est-ce que duñ wàcc dem xooli fee boor bee côté supporteru si yi ba pare toog si naaj bi métti na. waaw mais xam nga loolu dafa métti tamit gars yi moom la ñuy kaas 15000 lan dagg bi ñëw toog si naaj bi nii wala boobu. non gars yi dinañ si jóg. waaw incha allah nañ si baay xel bu baax nag. Siteu yi waa TFM a ngi takku de waa ngi takku de mobilisation bi. waaw bon ñu ngi si presque jeex na daal commencé nañu ñu ngi xaar. daa mel ni ngi waajal lu rëy pour euh, mbokk téléspectateurs yi jënd per per view. waaw waaw surtout ànd seeg nag GFM ñu bëgg a wan gars beneen façon pour doy waar ndax li te GFM euh, génne ci ay moyens wax dëgg du pour fii. bëgg mu baax rek moo tax ñëw fi mais ñooy remercier yëpp ñooy ci kaw ba ci suuf yëpp leen wax ni daal ñun kontaan ci GFM ban spectacle la ñuy xaar tey maa ngi gis podium maa ngi gis lépp lan moo nar a tey fii non fii da du fi am fu batteur yi ñoo war a toog fii batteur incha allah ñoo toog fii incha allah ay artistes dina ñëw wala ngaaka rek mooy ñëw ko fi mu toll nii moo téye làmb ji Lamine. non non yow yaa téye làmb ji. man téyewu ma. yéen bu ngeen ñëwee. yéen bu jël affaire yëpp jox leen ko. mais noo gise làmb ji. waaw combat bu nar a neex la waaye maaye yaakaar naa ne combat bu métti lay doon. loolu nga yaakaar. mais mais tax gaa yëpp jox Modou favori. ah mais c'est normal parce moom mooy favori. loolu moom loolu moom. est-ce que rôle favori boobu noonu jig na ko.

ñu dem euh, côté supporteru Siteu yi Ibrahima Ibrahima gaa gis waa TFM seen moyens yi diñ déployé xoola ñoom Mao Cissé ñoom Lamine Samba foo leen gis ña ngay réunion waa commandant kii mooy commandant ci wun yow lépp luy la war gérer commandant tey noo gisee sécurité làmb ji tey yow kañ laay laaj ñoo ko gisee tey kat la ma gis ci ay policier daa ëpp ak gendarme yi kon sa xel na te ñi sol civil ñoo ëpp ñi civil ñoo ëpp ñoo ëpp tey gisoo affaire bi ni mu leere heure bi est-ce que yaakaaroon nga dina leere nii te pare de ñi ngi xaar aussi ñi xaar pour bu ñuy ñibbi moo ëpp bu tase ñi ànd ak ñoom moo ëpp ñi nga gis fii njuuj njaaj wala naka sudul noonu dañ lay jàpp tëj la. ku lëmbe ma lëmbe la bu kaaw. Ah? tey kenn du lëmbe yow sax doo lëmbe. <laughs> commandant mi ngi may menacé yow. eh Ibrahima Ibrahima Malick Thiandoum accident nee naa la tey waa Futurs Médias kenn desul kenn desul. sant yalla Ndeye Kumba nam na la lol nam mo la yaa ya, ngi si jam waaw maa ngi sant bu baax. mi ngi may jaaw rek Ndeye Kumba sama dom eh. <laughs> pression bi la pression monte. wa no gisee combat bo combat bu neex la na a doon parce que tay bo xolé état physique gu ñaari mbeuri kenn du werante ndax liggéey nañu wala ñu kenn du werante ndax am nañu doole wala amuñu doole ku ci nekk dem nga ci say mbokk ñu wajal la kon jour biñ doon xaar rek mo yegg il y a plus que quelques heures Modou Lo ak Siteu bu ñu barrière yi ñu jëflante. mais lutax ñëpp di jox Modou favori bi. c'est la logique parce que favori li koy déterminer moy ci moment bi ngay bëré ak mbër bi ban parcours nga am yan performance nga def buñu jëlé critère de performance jël critère bi nga xamné mom modi critère euh palmarès Modou par favori parce que Modou combat yi mu bëre Siteu bëreegu guko, ndam yi mu am Siteu amagu ko euh, tàkkusaan yi mu am Siteu amagu ko en plus de ça mu nekk ci ben dynamique de victoire gagné ñaari ndanan deux jeunes loups au dents acérées ku daan Ama Baldé Dan Boignan, nous ñu le site, logiquement dañuy wax ni yow favori donc mes mais favori ne veut pas dire que un gagné parce que bu fekkoon ni favori mooy gagné le sport d'autres hommes sens kon li ñuy un suspense d'autres hommes. mais il a en face de lui un dangereux challenger parce que site du cuune moo ko tax tey muy un combat royal dafa def faire preuve preuves nek mbeur bu nga xam ne ay qualité yu mën daan mbeur bu nek donc lolo tax tay mu nek combat bu nga xam ne xayma da ngay wax 60 40 mais ci bir géew bi lu ne mën ci xew combat la bu nga xam ne njort naa ne xeex mënu ci ñak au départ nit ñi dañ doon wax ne est-ce que combat bi du combat arrangement. combine combine wala du combine mais au fur et à mesure que muy dem ñuy gis ni kàddu yi mi ngi changer respect bi Siteu joxoon Modou Lo ba mu upp mi ngi wàññeeku ñu dugg véritablement ci lamb dans la communication nga sentir ni Siteu mi ngi tutoyer Modou Modou mi ngi rester serein mais très ferme dans ses répliques lolu mo lay won ni combat bi tay egg na ci niveau bu nga xamné amna tension amna pression li ci dess nak moy buñu ñu sëggee arbitre bi bu wàccee loxom fofu la combat bi di nexé dinañu xeex. am ku ci gaañu. mbaa ñu dóor nit mu daanu. Ah? bu ñuy bëree tamit duñu ñu ci diggu géew bi bu jël bu di am ci làng gi lay doon lambu làng la maanaam ñoom ñaar déplacement latéral la ñuy def ba ci booru saako yi ñu soog a jëflante. arbitre bi il faut qu'il soit très vigilant. le grand technicien merci. <laughs> waaw yéen ngi gis naa ni Thiandoum na gis ngeen kàddu yu mu ñu kii Ibrahima ñu avancé tuuti dem ci la sécurité veille au grain gis policier ya ngi partout all access merci sécurité bi day veiller au grain salaamaaleykum waa Tarkindaa yi noo leen def waaw ah, toog di xaar victoire rek ah? xaar ci victoire rek victoire ngeen di xaar waaw incha allah daa mel da ngeen wóolu seen boobu day de non mu day ñàkk ah te tey nag damaa gis tarkindaa sañse ba jekk ñëw tey kenn du day ñàkk incha day ñàkk daa mel ko gis dañ la kaa ci gént wala. non gi mooy mooy gaynde rek jëm si la. jàmbaar la. jàmbaar ko indi fu mu ne nii. dëgg la moo ko indi fu mu ne nii. de bu mu du mbër. Mm-hmm. muy rayante ba ak si tey yaa muy bëree roi des arènes. day daan Modou te da ngeen soxla roi ah, man dama gëm day daan Modou incha allah. kon baax na. nee daa gëm ne dina daan salaamaaleykum soxna si noo la <laughs> man lu tax jigéen ñi di daw micro laa bëgg a xam sañ bi noo de. sant yàlla bu baax a si jàmm. bu baax a baax. koo faral. man moom amateur la dama ñëw seetaan si la. ah yéen amateur nga sañse ba jekk ñëw seetaan si. si waaw. làmb ji loo ñu si wax combat tey. combat bu neex la. ku ne mën nga daan sa morom. Hmm. mais kan nga yéene ndam. ah. koo yéene ndam. non man supporter laa rek dama ñëw rek seetaan si amateur. ñëw rek seetaan nga xam ne affiche bu neex la bu nar a neex euh, moo tax nga ñëw seetaan si parce que combat bi combat noonu la demee nag xool ne affiche bu neex la ñëw seetaan mais faruñu fenn nag non non ah, kon neex na Ibrahima naa avancé tuuti xool salaamaaleykum soxna si noo def. sañ sañ nga nice nga oke ok alors yow da nga ñew supporter wala da nga ñew en tant que amateur non dama ñew supporter ci tarkinda bi borom dekk bi tarkinda waaw borom jamm gën rek lay top lo gis tay ah ñu nga gis dormu daanu rek laa gis te te loolu la indi de te non yeen iya, dormu daanu bi xanaa da ngeen ko gént wala dañ leen ko dey non géntu ñu ko doon ko gis ni natret ni jaxarang te loolu moy am saak wala nga am xara ba ci kanam léegi nga gis ko ci digg yow ndam rek kese <laughs> supporter ci tay wolu nañ seen bop salaamaaleykum na ngeen def waay seen t-shirt yi rafet na de. macha allah merci waay. futur roi laa gis ngeen bind de. waaw gis nga si taa ko fa am. won ko sama caméraman mu xool euh, sa t-shirt bi won ko ko bu baax.